ñépp ban koy xam da daan muuru rafet ba rafet xoolal jàng alxuraan ba wàcci ko di def ay fam nit ñi di ko seetaan di ko may ay kado mu dem nag ba faatu duggante ñag yi dugganteeg xeet gu bon gi faatu commencé di sensé commencé di sensé nag di làkk ay français bàyyi sunu xeet wolof sax faatu du ko waxati day wax ak sénégalais la mu leer ne kii sénégalais la fa lay ne naa ko mat si kët ci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 bu ñibbisiwul fii àgg sori na sax balaa mercredi jeudi ci moom lay xëy di ci gott kat leen ndayam ngeen indi ko Sénégal ngeen dem yàgg ko mu dem jàng ay études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 ibaadu mujjee ci man ibaadu yi moo tax kuy tànn jabar xoolaat te nag boo leen gisee si laay bi dañuy lewatal ay kanam nag naana hmm, comme ko xamul dara bu ñuy wax sax am na nu muy demee dañuy màcc seen baaraam bi te fekk foo xool ci yaram bi koy la katt nañ ko ci poqutaan katt ko ci nopp katt ko ci paxu bakkan katt ko ci lëf katt ko ci tuut fu ne foo xool ci yaram bi koy la foo xool ci yaram bi koy la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 ngeen wax seen xalaat mais gis nga faatu boo bàyyiwul ñagi non du baax ci yow faatu boo bàyyiwul ñagi ñagi baaxuñu guddi baaxuñu bëccëg ñagi dun ay nit ñu baax dun ay nit ñu baax ñagi baaxuñu ñun ngay tëkkale ñagi ñun sénégalais yi ñun ñi nga xam ne danoo pare fépp yàq nga sunu der ci ñagi ñàq nga sunu der ci Sénégal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 ba may am bës faatu juddoogul ba may am bës bàyyi faatu juddoogul man ci dëgg rek laay dox li mu nekk wax leen ko mu arrêté ko moo gën lii bàlle na